ni sax nag lu nu mel la journaliste bi di Pape Alé Niang di ñaawlu ginnaaw xeex ba amoon foofee jëm ci way takkadeer yi ak askan way yeewoo ca gox ba muy wax ni nag fi mu nekk nii mu mel ni njiitu réew mi moom Macky Sall dafa toog xaar rek ba ñaar daal di ciy faatu ngir nag mu woote jàmm ndax gis nañu ca guddi ga nag la leen woo rek ngir mën a waxtaan ak notable maanaam rek ñi nga xam ni ñoo dëkk foofee ca Ngor. mu ni loolee nag moom waroon na ko tàmbali bu yàgg ndax bu ko defoon bu yàgg yaakaar naa ni tey duñu toll fii daal di àddu rek ci xeex bi amoon foofee démb nag ca Ngor mu mel ni sax nag ginnaaw xeex ba amoon rek ci diggante askan wi ak way takk der yi ñoom nag li ñu bëgg rek mooy tabax ab brigade gendarmerie foofee ca seen nag suuf sa te ñoom nag lañ fa bëgg def mooy après que lycée ba tax na sax ña ngay wax ni am na ko ca faatu waaye mu mel ni xibaar boobee wérul ba tey ngir nag ñu daal di dakkal li ñu mel njiitu mu mi Macky Sall daal di nay woo nag sa gudd ga sax foofee ca pale ba autorité nag yi nekk ca Ngor ngir ñu waxtaane li ñu mel ginnaaw googee sax bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi lee di waa l'observateur ñi ñu xamal bi lee xibaar ñu ngi wax ni sax terrain boobee dañ koy xaj ci digg bi ñi nag di gendarmerie bi jël li ci des waa Ngor jël leneen li ngir mënal amal nag seen li nga xam ni mooy lycée bañ fa bëgg ba tey journal bi di ñu xamal lu jëm nag ci stade bi sax bañ fa bëgg amal mairie bi moom dina ci taxaw daal di koy tabax ñu def ab itam ab lycée boo xam ni gone yi nag nga xam ne ñoo dëkk ca gox boobee dina ko ngor dinañ fa daal di jàngee te loolu yëpp dafay bokk sax nag ci programme xëyu ndaw yi lee suñu naataango sax nag waa l'Observateur ba tey rek ñoom di xamle ni nag ki nga xam ne moo jiite bi la commune maanaam maire ba mi ngi xam leen nag dinañu amal sax ab ndaje ak taskatu xibaar yi ngir gën a mën a leer